wax ni tey jii collège des femmes bi nga xam ni ñoo ma jiital def ma seen coordinatrice ñoom ñoo moom mérite bi que ñu fi jël parole yépp nee nañu Adja Marème euh, nit ñi luye chaise yombul nit ñi nii mais dafa di collège dafa nekk benn entité boo xam ni duñu ñaari nit duñu ñetti nit mais ñun ñëpp benn nit lañu collège su kenn soxlaa ñëppay laxasaayu jóg collège des femmes muy entité boo xam ni kuréel boo xam ni jigéen ñi dañ fay daje jigéenu APR yi di fa waxtaane di fa nas di fa noccee di harmoniser ba tax ba jigéenu APR yi nga xam ne ñi ngi collège des femmes dematuñu fenn di xëccoo dematuñu fenn di xuloo dematuñu fenn di jaay yëfu baadoo la gàcc ngaalaamaa waa collège gërëm naa leen sant naa leen parce que su ngeen meloon neneen ah kon dina doy waar am ngeen fulla am ngeen fayda mais nag ñu ànd àndu ngor àndu égale dignité man mi nga xam ne dañ ma jiital may seen coordonnatrice pourtant Adja Ndeye Daba elle est première vice-présidente du conseil départemental mais su ñëwee day topp sama ginnaaw donc loolu mooy ànd ngor ñu ñëpp def benn ñu topp ci ginnaaw coordonnatrice ñuy doxal ça ne veut pas dire que coordonnatrice bi mooy décider déedéet démocratie mooy am ci biir collège bi lu fi am dañ koy waxtaanee xale bi ci gën a ndaw mën na proposé idée boo xam ne mooy bu baax bi ñun ñëpp ñu adopté ko su ngeen gisee ren lu tax defuñu conférence dañuy moytu yàq gaspillage parce que naan conférence baax na mais suñu defee lañ cay ñàkk ci xaalis la ñuy dépenser ci logistique la ñuy dépenser ci ay nuróole ay yére la ñuy dépenser ci leneen ak leneen ñu ne ren kat loolu yëpp nañ ko boole toog def une organisation sobre maanaam ñu woote

jigen ñi ngeen fi gis jigen bu nek minimum minimum li gëna ndaw boot 25 femmes motax lu ñuy def dañu nan ñu ngeen cotiser ku 2000 c'est la loi du nom 1000 femmes su ku ne cotiser 2000 on a facilement 2 millions ñu commencé di dérouler sante suñu tiam ñi di sante suñu responsable yi nek ties collège de la femme dafa am nu muy doxé

mu gëstuwaat collègue collège, Nous benn entité de femme sommes ngi fi mbubu Nous na nañu mais nag ñi ngi bu parce que des Nous collège de la femme moo jóg di animer la partie. di animer la partie. di massifier la partie, di dugg di nit ñi dañuy développement aussi chaque mois dañuy daje boole suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm def ay financement jigéen ñi dem liggéey di liggéey di ci gis seen bop bu baaxa baax donc nonu nga mëna def pour mëna a sa ay nit ñu bari ñi ngi inquiété wu li bi ngeen ko kii ak léegi yàggul mais lan moo tax ba ñii ñëpp nekk c'est parce que lu ñu liggéey la depuis longtemps d'une manière méthodique et organisée donc loo doxalul ak organisation ak méthode du dem collège nag noonu lay fonctionner Euh, may gërëm ñi ñi jappalé ci bis bi collège bi nak ci transparence la ñuy dox parce que andu jigen bo gis and bi am ñetti at di gën di yokku c'est parce que naxaate amul ci transparence la dox motax lañu am yépp ñu jënd ko indi ko ci biir collège département euh, euh, permanence départementale né ñew leen liñu am ngi ni ñu bokku ko ñu bokku ko ndax andu ngor lañu andu àndu égal dignité te ñu ànd tey jii suñu naroon luuj njaaj mënoon nañu ne nañu woolee au responsable du collège jox leen ñu yóbbu dem séddale mais dañ ne déedéet fii lañ koy séddalee fii lañ koy defaree ba mu rafet di wax ni que fii ay jigéenu président Macky Sall rek moo fi nekk président Macky Sall ñun ñoo ko ñun ñoo koy imposer son deuxième quinquennat ñun ñoo koy imposer fii à Thiès les femmes du collège ñoo koy imposer.